nga àndal ak sa xel nga bëre ndànk xamal fa ngay teg sa char daa jëm mat sa xel lamb ji jël ndànk dama yor ragal dama yor ragal dama yor tuuti ndox naan bu ragal arbi toogal ñoom ñooy ñëw jàpp ca grand combat ba diggante Paul Maurice ak Liu Thior Paul Maurice moo féetee loxo càmmoñ Liu Thior moo féetee loxo ndeyjoor oh ñaari ndaama lañu nag Liu Thior moo sut wante tuuti na ko sutee rek Liu Thior tàllal la loxo ba nga koy nag waykat yi dañoo sonn tegikat yi dañoo sonn reporter yi ak caméraman yi kese ak kese sama ñooy ay ndaanaan ñooy ay gay jaajëf Basirou Diouf borom Wassare Lamb yàlla na sa jàmm yàgg Diouf a njox a bàyyi borom tur wu gudd wi ay ca Paul Maurice ak li ñu coor attention et Paul même na de mais li ma jaaxal ñoom dañoo bëgg wetu saako yi mais booy xanaa dafa am lu ngeen suul ci wetu saako yi da leen bëre ci digg géew bi waay dam leen ci digg géew bi bëri ñii du ma leen bàyyi faaw ñu bëre ci digg géew bi waaye maa ngi bëre fii waaw waaw Paul dóor na mais dalul attention Paul dóoraat na ñu fayu na combat bi moom dafa mel ni Paul moom xeex bi la bëgg attention eh wala koy wocce googa ñu ngi nag ñu ngi jot waaw waaw bëre leen amateurs yi dañoo bëgg a reer yi dañoo bëgg a ñibbi baaram day foqante baaram waaye li ñu coorte daa yëpp client li ñu coorte client bi nga yëpp fa la ko yëkkalee kaay lekk xeexa ko gën a kaay lekk Cheikh Fakh lañ ko doon wooyee bi mu doonee xale bi mu màggee lañ ko tuddee Paul Maurice hey coono gi bëgg a feeñ de ah Bachir coono gi bëgg a feeñ ayca mu ngi noonu coono gi bëgg a feeñ diggante Paul Maurice ak Louis Thior attention dara amagul de eh. dara amagul de. ci watu saako yi la eh Paul door na Paul door na Paul door na da ngay da ngay jéem a jàpp eh ku laaw eh attention. neexal tëgg et puis tëggatuñu waykat yi wayatuñu. arbitre ba suuf la waat na léegi mi-temps jot de léegi ñu bëre 15 minutes grand combat bi waat 15 minutes mu jeex. ay ca mbigi doonu Paul Maurice ak Liwi Thior arbitre sëgal sa booli mooy arbitre combat bi soufflé na waaw waaw Paul signalé na am na lu nekk koo sàcc da koo sàcc li mu coor daan na xale bi daan na ko jël bu rëy plaqué la ko daw moom.